presse ngi ni njaagoor bi waaw maman ñëw nga maanaam njaagoor lan presse waaw c'est la Big Bang wala wala la basketteur de l'arène c'est la Big Bang fu mu daal baax na loo wax rek noonu la ah mais mais démb ni nga démb ni nga bëree démb. démb ni nga bëree sa yaay. démb ni nga bëree. Ah. démb ni nga bëree. ah maa ngi ah, ñëw. maa ngi gën. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ni mooy faralee di kontaan à chaque fois ma lay dalal Bessé Frézy la borom li ci réew mi TV mais tey nag ma ànd ak sama yeneen naataangoo ko ci mel ni Makan ak ñi mu àndal waa Lutte bi ginnaaw nag ba ban prince amee ndam lu mag démb fee ci arène nationale waa nga xam ne nag ñi ciy sant yàlla bu baax a baax waa ginnaaw rey kontaan képp kuy xam ne supporteeru prince nga nga kontaan ah balaa kenn di wax nag yaayam bi ko jur dafa war a gën a wax ma yaakaar ne ki nga xamante ne nii moo jur prince tey xolam war na sedd ñu bàyyi ko mu sànni ay kàddu ci affaire bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. j'espère que seetaan nga démb combat bi. seetaan naa ko kay. Mhm. nga nekk yaayu prince lan nga yëg ba nga seetaanee combat bi. ah li ma yëg moom bëri na trop trop trop trop ndax prince xale bu baax la xale bu yaru la xale bu am respect ci ay nit. Mhm. prince moom dama naan alhamdulilah alhamdulilah mais yàlla na ko yàlla dafa jaam bu baax a baax a baax a baax. amiin mais bon coow li bëri na. ku ne prince wax coow wax mbooloo bi nga topp nan ngeen ni nan ngeen di dundee loolu ak mbooloo bi nga xamante ne moom moo ko topp. ah kontaante rek mais xale yi ñoo ñoo ñoo bëgg prince te ñun dañuy ànd ak ñoom comme ni ñu bëggee prince ñun noonu lañ leen bëggee daal dañuy ànd ak ñoom rek waaw ndax xale yi yaru lañu xale yu baax xale yi amuñu benn problème ñoom dañuy soulager rek loolu lañu xam kër gi day fees dell. waaw amuñu benn problème xale yëpp a baax waaw damay kontaan rek comme ni ñu bëggee sama doom ji rek noonu laay def di kontaan rek waaw. kon yow bu ma la déggee dafa mel ne bokkoo ci ñi nga xam ne dañoo xalaat ni àndandoo bu bari mën na yàq lii nga xam ne mooy carrière wu Prince parce que su ma déggee ñu bay dañ naan dafa bëri àndandoo ñii dañ si bokk ñeel day lan nga wax ci loolu. loolu dara nekku si xale yëpp benn lañu barke Cheikhou Tidiane maa leen jur muy saret muy borom moto ñoom ñëpp samay doom lañu. xale yi boo ñëwee maman maman la ñu amuñu benn xaar ma yàlla xale nag boo ko buggee yedd boo ko yeddee mu nangu waan xale yi amuñu benn problème fu ne la ñuy jóge am na nga xam ne Touba la ñu juge ay xale ndaw fii la ñu fanaan mais alhamdulilah rek waaw alhamdulilah baax a baax a baax. ñu gis ko mbaam démb bi nga xam ne dafa jaar yoon préparation bi nan la demee woon. si xale yi rek la chaque jour entraînement sur entraînement man loolu laa ko sant. entraînement ñëw reposer lekk naan man daal alhamdulilah rek laa ko jàppee. alhamdulilah ginnaaw ñun ñëpp ba ñu kontaanee maman tey jii lan la prince mës a def loo xamante ne nii marqué na la ba tax sa ñaan jub si moom. eh prince prince ba muy xale. da daan jàngi bu ñëwee ne day basket yi mu bi mu arrêté basket bi mu ne xale yi góor yi topp ko naan da ngay bëri da ngay bëri da ngay bëri ma ne ko ah sama mbër sama joueur bi bàyyi leen ko rek bu xamee bu mënee dara bu ko boobaa dama koy yóbbu Amérique laa koy yóbbu Prince barki Cheikhou Tidiane nii laa ko waxee mu jékki-jékki rek di ànd xale yi dem di bëre ji mais alhamdulilah lañ ma sant alhamdulilah. kon bëre bi mu nekk tey influence la bu ay xaritam def ci moom. barki Cheikhou tijaan ay xaritam ay dëkkandoom Prince xeebul kenn ñëpp lay àndal xeebul kenn ñëpp lay àndal waaw xale yu ndaw yi sax dañuy ànd ak moom mais alhamdulilah rek. alhamdulilah sama naataango yi. gis presse bi nga xam ne moom nijaayam bu nekk France ne ko basket jëndal ko lépp ne ko na basket ay xaritam rek xam nga rek xale yi mooy loolu ñu bàyyi ko mu ànd ak ñoom lu mu nangu lu xale yi nangu rek mu ànd ak ñoom prince. mënu la wax si prince sax barki Cheikhul Tidiane ak waxtu yàlla bii. prince lu mu am lekk naa ko prince jox na ma cër bu ma toogee mu ne ma lan la ma ne ko ah bëgg jaay rek mu ne ma kaay ñu dugg si biir mu ne ma am jëlal lii nga liggéey mais prince yal na ko yàlla defal jàmm daal alhamdulilah rek alhamdulilah rek laay wax nga gis man sama yaram day daw bu ma gisee xale yi xam la laa leen njëkk a yéene nañu lekk ba pare naan ànd ak prince xale yi man duma kuy wax si xale yi sax man sama xol bi day mel ndax xale yi amuñu benn problème nañ leen gis nii rek mais amuñu benn problème ay doomu jàmbur lañu lu ne lay dégg nag mais alhamdulilah rek duñu dara mais loolu du dara billaahi prince mais prince daf ñoo respecté ñun du ñu seetaan prince di def lu bon bu boobaa dañ koy dóor ndax dañuy xeex ba tey maman tey jii boo bëggoon teg benn euh, stratégie wala benn idée boo xam ne day jàppale carrière bi pour mu jëm ci kanam comme ni mu débuté lan lay doon xam nga prince bu waxee sax day reposer du mun a reposer prince xale bu ndaw sax mën na ko yee mais man li may ñaan si darajay Cheikhou Tidiane bi moo bokk yàlla na ma yàlla jàppale ñu jàppaleel ma sama doom ji ba mu dem tukki fenn reposer ñëwaat ànd ak ay xaritam te du leen mës a fàtte loolu laay ñaan alhamdulilah. prince <laughs> prince am na fulla am na fayda xale bu jigéen du ko yàqal dara gisuma musuma gis gelu prince. ak waxtu yàlla bi musuma gis gelu prince alhamdulilah daal dañ bàyyi noonu rek alhamdulilah dama alhamdulilah dama kontaan mais yéen jërëjëf rek yal na leen yàlla defal jàmm seen télé bi yàlla na yokku. mais maanaam tey avenir u doon mm. daan na ki nga xam ne moom moo di Kokel ko ci làmb. Mm-hmm. di fay dinaa nu dégg tuwaat démb bu baaxal rapport bi daan mm-hmm. <laughs> waxoon naa ko de Prince si kaw rek si kaw rek Prince si suuf. day fekk sama bakkan bi wadda xam mm-hmm. maa la wax lii. mais mais mu mu gën a jëm ci kaw. mu gën a métti eh? moom ay ténor yoo xam te ni ñu ngi fa nekk ndax booba bi mu bëree ba pare jëm montage yi bari na ku ñu ngi ko koy booleel. moom jiw moom sos moom ñeneen moom ñeneen moom ñeneen coow li prince moo mën ñëpp. moo mën ñëpp. maa la wax lii prince moo mën ñëpp. instant bi instant bi maman ci ban mbër ngeen samp ndënd yéen. ñoo samp ñu si kenn de duñ samp. Hmm. duñ samp. ku ñëw. ku ñëw ñu bëreeg moom. ku ñëw te ku ñëw mu daanew. déggoo li ma la wax téye dama ko téye amee. boole leen ñu ku ne mais déggoo li ma la wax. koo eh mais yow man ngay waxal de ah mais yow waaw ah, gis ngeen jërëjëf rek yéen sant yàlla rek sant yàlla waaw lii la woon ci émission bi nga xamante ne moom lañ dalal kii di waaye jaar na ci kanamu caméra ba rek moo ko fa am yaa ko fa am demal émission bi nga xamante ne moom lañ dalaloon tey yaa waa yaayu prince ñu dégg li mu wax xol tooy na vraiment lii am na ñaanu yaayam donc mën nañ am yaakaar ci carrière am ñu demaat xooli beneen daanaan ak waa këram presse ngi ni njaagoor bi waaw mama ñëw nga borom njaagoor lan ngay ngay dox baba presse waaw c'est la Big Bang wala wala le basketteur de l'arène c'est la Big Bang c'est la Big Bang fu mu daal baax na loo wax rek noonu la ah mais mais démb ni nga démb ni nga bëree démb. démb ni nga bëree sa yaay ma wax démb ni nga bëree. ah démb ni nga bëree. ah maa ngi rafet. ah maa ngi ñëw. maa ngi gën. léegi léegi moo tax léegi moo tax. وسط Thank you. Basqueur de l'arène Prince Sela Bing Bang